temps ñuy ñuy pare nga xam ne li des ci émission bi yëpp yàq moom Samsidine Aïdara maa ngi lay ziar bu baax Sega Danfa xa nee na moom mu nga toog Mbambilor di ñu seetaan Moussa Danfa bi y a des choses Samsidine Aïdara qui donne son opinion la sélection est quelque chose de normal mais l'administration doit respecter l'application des critères qu'elle a mise en place elle-même et ça je pense que c'est pas rentré dans l'oreille de sourd et si jamais il y a des éléments de l'UVS qui voudraient apporter des éléments de réponse mm. vis-à-vis des requêtes qui ont été disciplinés, qui ont été corrects, envoyés par les étudiants, vous, avez la parole, vous avez la possibilité d'avoir la parole. Allons à Bambilor pour voir ce que vous nous avez cherché là-bas. Bambilor di dëkku lébu euh, ki ko sos dee nañ mu ngi tudd Yaay Awa Ndiir jigéen woon dëkk bu ñu naan Gorom 1 ñëw sanc Bambilor mu nekk dëkk boo xamante ni euh, li ko wër ci village Pape Sidi mhm. bari na biram doo bi ngay dégg fi sa génération nekk jéeri déeni biram ndaw mhm. génération bi ngay dégg si Mbambiloo la bokk ak yeneen village yu ne si ginnaaw yoo xamante ni cosaanu cosaanu lébu la cosaanu lébu la kii ko kii ko sanc bu bu am dara bi mu koy sanc nekk loon màggatum lébu bi mu koy sanc jànku lébu la woon <laughs> mais bon du jànq de du màgget tamit da xam naa ne daal ah, mais maam awa xëyul rek màgget aussi ah maam awa mu ngay sosal <laughs> récemment sax lañu fa tabax benn marché bu mag tuddee ko ko. Uh-huh. donc di ko ñu seetal élément bi ñëwaat ci plateau bi. ayca on y va. wala jàpp lu bari la. ndax Bambilor damay wax ne yàgg na yàggul mais boo xoolee ne Bambilor mooy dëkk bi si dëkk yi xam ne ñoo mujjee juddu si la bokk mais tey mooy dëkk bi gën a peuplé si commune bi et mooy seetu commune bi kon Bambilor li ñu si mën lu bari la bari ndax ñun ñi ñëpp Bambilor mag mais nag dëkk bu yàlla teg lu xam euh, ndax it euh, dëkk bi ni mu mel dëkk yëpp noonu lañ bëggoon mel wala mel mu ko gën a taaru kon nag ñun dee doomi Bambilor di juddoo si dëkk bi màgge fi ba tey ñu laaj si. dëkk bi ni mu mel dañu am fierté bu baax wax ko ñi xamuloon bu ko defee ñi xamit xam ne dëkk bi yàlla tural waaw xeet yi fi jëkk sànc li ay lébu lañu rek ndax Bambilor euh, soxna Awa Ndiir moo fi jëkk ñëw soxna Awa Ndiir soxna Awa Ndiir mu Yorom 3 nag mën nañu wax ne dëkk bi mag yi dëkk yi mag si dëkk yi si la bokk ñëw nag sanc fi ak juróom nag bu ñu tegee ay yu néew da suma maam jóge deen ñuy wax alaaji góor gi alaaji Malick Mbàcc ñëw fi doon def commerce dëkk bi dem ba nekk daal comme jigéen moo fi ne dañoo bëgg daal ñu dégg ñu jox la dëkk bi yàgg na fi lool it te bi muy ñëw ay teranga la terangam la àndaale jógeeg moom day di biram ndaw dëkk moom du kenn moo koy defar mbooloo bi moo koy defar ndax euh, man li ma jàpp ñi ma jàpp ne ñoo liggéey bi si li si def sax mooy mooy délégué ndax man fu ma taxaw fu ne délégué de quartier yi ñooy taxaw sama wet lu ma song lu ne ñoo koy ñoo ma koy jàppale waaw Bambilor moom rab yi moo tudd Bambilor Bambilor nag am na dëkk am na si dëkk yu bari ndax turu rab yi la rab nag mën na nekk diin comme mën na nekk fenn am na fu nekkul ndax rab du benn place rek dëkk kenn ku ne booy dem da ngay yóbbaale say say bagage kon euh, loolu ñu ngi koy lu bu baax a baax. date exacte création Bambilor bi xamoo ko. Euh, ñi fi njëkk a ñëw 1924 lañ fi ñëw. sant ko. waaw 1924. sant ko. Euh, sant ko. dañuy sant yàlla bu wér a wér di sant suñu waajur di sant monsieur le maire bi ñu tabaxal marché bi indi ñu ak ñuy nekk ci gannaawam ñëpp ndax marché bi fële lañ jëkkoon am marché si bayaal bi ci mbedd mi bañ fay amee marché yoonu ndox la daan feew fees képp ku dëkk Bambilor rek xam nga ne marché bi foofu yoonu ndox la bu daan ñëw taw dañuy génn ci tali te tali bi wóorul ak oto yi maire laaj fu ñu bëgg ñu jox ko fii mu tabaxal ñu marché marché bu mucc ayib nag ren li ndox di bari bari bari buñ duggee ci biir yëguñu ko te génnuñu benn yoon lu mu taw taw taw ñoo ngi ci biir toog demuñu fenn li mu organisé maire bi mu ko tabaxee ba pare daf ko tabax ba defal ñuy ventilo place yi place bu nekk mu teg si chaise chaise bi numéro bi nekk sa table moo nekk chaise bi loolu lañ loolu lañ defal am na yu ñuy bayee fii borom tool yi di indi si biir marché bi di jaay am na yoo xamante ne dañuy dem ba nootoo wala kër Abdou Ndoye wala caaro yi di jëndi bagaas waaw am na ñoo xamante ne tamit dañuy bay si tool yi di ñu indi fii ñuy jënd kañ dañuy sant yàlla bu wér a wér a wér di sant jigéen ñi ci biir marché bi ay jàmbaar lañ ay daan doole lañ bëgguñu daray kenn lu dul daan seen doole. donc maire accompagne ñu ci jàppale ñu ci organisation bi lépp réussir bi ñu si jógee aussi on a eu en contact avec le maire ñu am benn partenariat boo xamante ne dañuy réfectionné foyer des jeunes de la culture bu Bambilor ci kaw loolu ñu def ci plus de vingt millions déjà projet bi incha léegi mu yegg li ko tere mu yegg bareetul ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali beneen bi aussi tamit euh, bu ñu waxee ci wàllu éducation ñun dañu doon organiser ay journée de sensibilisation sociologique ay journée de conférence philosophique pour élèves yi nga xamante dañuy def maanaam di yëngatu ci wàllu examen donc yooyu. est-ce que am na njëriñ après am am résultat après. effectivement effectivement euh, boo xoolee heure bu ñu daaw yàlla dafa ñu dimbali daaw yu jéeg bi ñu ko organisé yàlla dafa def sujet bi bi génnoon moom la prof bi moom la prof bi def élèves yi génn vraiment ñu am seen satisfaction ndax ñun chaque année. ñu defee lu mel noonu ba pare dañuy defaat investigation demaat ci école yi xool exactement ba xam rôle ak responsabilité ba xam am nañ ay résultats yu baax par rapport ci niveau BAC lañ ko doon def ci niveau BFEM mhm. euh, conférence française lañ defoon boo euh, benn prof français bu waxtaan ak ñoom ci lu bu mel jàppale leen ci ndax loolu dafay bokk ci liy jàppale xale bi bi ñu xool Bambilor euh, daanaka cible xale yi les enfants de 0 à 5 ans 59 mois ñoo ëpp lu ñuy fréquenté poste bi Ah, ci jamono yooyu ñu seetlu ne jamono yi ñu nekk biir buy daw bi ak wàcc yaram bu tàng bi soloon na lool xale yi fiñ toll nii. lu mel ni HTA mooy hypertension artérielle bëri na fi lool ak jabet bi bëri na aussi luñ koy constaté ci post bi en même temps état grippal yi ñu ngi fiy ñëw bu baax muy ci mag yi comme ci xale yi. dotation matérielle moom gëj nañu ci jot gëj nañ ko jot euh, depuis bi ma fi ñëweek léegi. ñi ngi am appui bu jóge ci mairie bi côté matériel d'hygiène beeg yooyu noonu mais lu mel ni matériel bi ñu utiliser moom jotaguñ ko jot ci post bi. côté accouchement bi moom euh, amaguñ ci ay complications parce que jigéen ñi acteurs communautaire yi ñu ngi def sensibilisation bu baax ci biir jigéen ñu wérul yi di leen accompagner ci visite bi ba keroog ñuy am doom moo tax bu ñu duggee ci seen weer rek dañu koy teel a préparer. ba lu leen metti ñu daw si mën a accoucher ci post bi te yàlla dogal na tamit accouchement yi ñu fi jot a amagum yëpp amagul benn complication boo xam ne dañuy wax ne bu majeur la ba ñu war ko mën a évacuer. tey jii la commune de Bambey ku nekk xam na ne ay compétences am àggul ci enseignement 1774 waaw fii bu ñu waxee Bambilor c' est la zone des Niayes tey defe naa ne peña ménagère bi jóge dakaar fii lay jóge parce que dañuy def ay activité génératrices de revenus maanaam céréale locale bi ñu ngi tamit si transformation fruits et légumes bi mais aussi ñu ngi jëlee légumes fii si tool yi di ko jaay beneen bi mooy am na ñoo xam ne aviculture la ñuy def ñooñu nag booy xool sax ñooy ñi gën a bëri parce que zone bi moo tax jigéen ñi ñu ngi def aviculture ñu ngi def lépp. ba xool daal jigéen ñi lépp lu jëm si lekk ñu ngi koy def ak lu jëm si artisanat fii lañ koy bayee fii lañ koy bayee fii la ñuy yare ginaar yi parfois euh, dañuy dem si banque yi ut financement si maire bi tamit si nomenclature budget bi am na la participation diverse ba amee sa projet bu bancable fiable boo ko déposé maire bi maire jàppale la loolu ay projet la amul benn dëkk benn dëkk bu nekk ci commune Bambilor te mënoo dem gis fa infrastructure boo xam ne entre mille 2014 la ak mille vingt 2021 boo xam ne mairie commune Bambilor moo ko def ci fonds propre bu ñuy wax fonds propre mooy du lu ñu la may du lu ñu la aal mais ay recette la yoo xam ne yow yaa ko fexe ba am ko ba nga mën cee defal askan wi ci lañuy ñu tabax ay infrastructure infrastructure yi nu mën a jëkk cité mooy marchande muy suñu yaay yi ci naaj wu tàng yu lañ daan toog di jaay bu yàlla ji dee taw da ngay gis ndox mi di sotti seen kaw wala ñu jël seen i mbaar di ci def ay imperméable suñuy wéjur lañu donc war nañu jéem a xool mettre leen cas condition yu leen permettre vraiment bu lu mu manti taw taw taw ñu defaral leen fu ñu nekk si lañu ñu commencé di tabax ay marché tabax nañu gërëm un marché tabax nañ deeni nord marché tabax nañ Gorom 2 marché tabax nañ Bambilor marché tabax nañ Kunun marché tabax nañu Kër Njaayloo marché. sport secteur bi xamuñu ci lu dul football mais ñu ne ñun du football rek moo am ci réew mi non il faut ñu fexe ba promouvoir tabax ay terrain de basket. ci la ñu tabaxee le terrain de basket de Gorom 2 le terrain de basket de Gorom le terrain de basket de la cité des enseignants et de Bambilor ci la ñu initié yeneen terrain de basket bu nekk comico tabax bu nekk akis tabax si ñaari dénn yi fu ci ne terrain de basket travaux yi démarré nañ ba léegi ñu pare bi ci des ñu dugg ci wàllu santé santé bi ñuy ñëw booba poste de santé yi fi am pour nit ñi approprier wu poste de santé yi bu nawet jotee c'est tout un problème ndax ay ardoise ñoo ci newoon wala ay zinc yenn yi dañ doon tawte dañuy doon senn si la ñu réfectionner le poste de santé de Bambilor réfectionner le poste de santé de Kounoum bi ñu réfectionner ak le poste de santé de Déni Biram Ndaw Nord mu permettre ñu tabax le poste de santé de Gorom de mais poste de santé amuñu woon ay logement ICP ou sage-femme si lañu ñu tabaxee le logement de la sage-femme de Kër Ndiaye Lo et de et l'ICP de Kër Ndiaye le logement wu sage femme bu gorom 1 ñu tafa defar ko gorom de poste de santé bi ñu tabax logement sage femme bi ak logement ICP yi réfectionner le logement du de l'ICP du poste de santé de Kounoun. la commune est dotée de sept ambulances ak gratuité carburant amul fu ambulance di évacuer malade <laughs> yu jàll du ma la waxal li ma la xamal keroog dama fay publier benn boy bu tudd Fall bu dëkk Pikine créé benn benn boy bu reetaan lu ñëw si commentaire yi waaw ñëw si commentaire waaw ma li ma wax gis naa ko di ñëw si commentaire yi na ma pour la première fois ma gis waa Pikine créé lu baax <laughs> ma ne ko yow pour yow tous tasar ku ko créé <laughs> te loolu temps la <laughs> ñu ngi tooñ waa Pikine te kenn waru leen tooñ on a été à Mbambilor ah mais rassure moi papa on dit Bambilor wala Mbambilor Bambilor. Bambilor c'est pas M A M. c'est B A M. B A M c'est pas M B A. waaw c'est B. c'est Bambilor, Bambilor au lieu de Mbambilor. ok. dëkk baa ngi noonu Pape. c'est bien de savoir. waay defe naa déglu nañ yenn secteurs différent yi lu mel ne euh, santé éducation ak euh, sécurité ak euh, yenn yoo xamante ni peut-être ña fa nekk yëkkati nañ ko. Euh, jëmmal ko ci kii dëkk bi mais Pape li ma gën a am amal importance mooy <clears throat> boo ñëwee si mairie bi ña fa nekk yëpp ay jeunes lañ. yàq des jeunes. yëpp maire mooy recruter dugal leen ci biir mairie bi liggéey di di di di di fayeeku. waaw waaw Bambilor à part à suuf ban activité moo fa parce que foofu ñëpp dañu jaay suuf ah. waaw ah, sama toolu maam la bay bi am na fa solo de. ñu ngay bay ba léegi. waaw ay kaakaaneeg ay tamaateeg ay salaat ak yëpp. presque lu ëpp ci li ñuy jaayee ci marché ba ci foofu la jigee ci foofu lañ koy bayee. waaw ah, te en général ci biir kër lay nekk ay micro jardinage lay doon jigéen ñi di ko bay di yóbbu si si si bi di di di di jaay. aussi tamit tool tool mbay aussi am na fa am na fa am na fa kii. am na fa gëdd. waaw aussi tamit euh, presque mun naa ne Dakar fenn rek moo fi des fu ñuy tibb suuf di tabaxee muy Mambilor. moo tax heure boo fa demaan camion yi dañuy rang di di tibb suuf di di di di génne donc loolu tamit defe naa. kon suuf si foofu dañ koy tibbee Mbambilor tibbee Mbambilor indi ko di tabaxee Dakar indi ko di tabaxee Dakar. presque moom leeru nañ tefes gi yëpp. waaw ba érosion côtière di ñu bëgg a rey. Mhm. mu nekk dëkk bu aussi tamit dëkk bu bu bu am kii espace bu yaatu macha allah da nga fay dem di nooyu air boo xamante ni macha allah. le maire s'appelle comment. Euh, Ngagne Diop. Ngagne Diop Ngagne Diop ñu di ko gërëm baax a baax a baax ak euh, Ousseynou mi nga xamante ni yombal nañu liggéey bi ak Mouhamed Ndiaye ak euh, ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey ba mu yemb. Euh, mayuñ la fa terrain. déedéet. Ah, waaw waaw Mbambilor day leen may terrain nag saa yu may ñëw foofu noonu. incha <laughs> waaye bu fa amee kër ñu fay ñëw di fa di fa njogona. ba léegi si ay mbaxin puuj pàcc. en tout cas en tout cas moi l'image qu'on a de Bambilor c'est que à chaque fois qu'on parle de là-bas on dit terrain ñaata lay jar terrain ñaata lay jar foofu léegi. bon laajte ma ko. Ah, mais en tout cas daal pour dem dëkk. waaw dëkk boo xamante ni ñëpp daal fa lañ jublu fi mu toll nii. c'est bon fa lañ jublu lañ jublu fi mu toll nii. l'espace de vie est cool. Bambilor Kounoun Niakoulrab Lac Rose bi noonu. ainsi de suite ainsi de suite loolu yëpp Bambilor la. yëpp Bambilor la. c'est bien Bambilor dëkk bu dëkk bi ba ci ba ci dënnu biram ndaw. Hmm? ganaar ah, waaw Kër Massar sax ganaar fii la fii la gën ndax foofu noonu xam ganaar boo ko yer pap warta am pollution bi war ko kii ak yenn kii euh, ngelaw bi bu ko nooyee ganaar yi mën na ko mën na indi problème surtout ganaar élevage yi mm. foofu nga xam ne espace géej gi da koo jege foofu ngay gën a mën a ndax ñu mën a kii bi ma duggee Ndakaaru ba léegi ganaar gëj na maa yee amatul